kii nag moo ñëw tey te lu mu am yàllaa ko may ak jikkoom ndax département boo xam ne maire yëpp a dal yow lañu jiital gëm naa ne budul Kaolack est-ce que am na fu mu am Sénégal est-ce que am na bay sosay APR département bu mel ni Kaolack lu mu am ci cadre APR dafa bëri nga mujjee ñëw ñu ne yaay président potentiel dara tax ñu def ko

kan ci tek Sonko yi la mais du xalé yépp nak ñu am xel ah mais du dem sax ci mais pas yi am xel parce que xam nga au Sénégal mëso gérer administration xamo dara ci réew mi nu muy di sos nga sos ko di ay nga président on verra. bugguma commune ngeen koy def si tu c'est le bureau qui a jamais moins de 80 à moo tax ba indi fi meeting bi mosuñu am moins de quatre-vingt pour cent élection bu mën a doon nag maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem waa njëbel yëpp monsieur le ministre maa ngi lay wax na la ñun engagement bi nga xam ne moom lañ jëloon ci sa wet tey lañ koy gën a feddali parce que kat man nga ñoo mag wala man nga ñoo sax jur waaye dof dof nekk fi xam nañ ku nekk yaay kan ca xàmmee nañu su ñu la toppee sax parce que xam nañ ne li ñu wut ci mag mu baax wala li ñuy wut ci responsable boo xam ne war nañ koo jiital topp ci ginnaawam dañ laa topp ba gis loolu ci yow suñ ko gis gistoon ci yow duñ la topp buñ ko gis gistoon ci yow duñ la def suñ kilifa wala duñ la def suñu conseiller pour nga di ñu xalal jaar leen fii wala bàyyi leen lii li waa dëkk bi gis ci yow ba topp la ne la yow la loolu lañ gis ci yow ba topp la ne la yow la waxoon naa la fii ci sa buntu commune bi ma ne la lépp loo nekk incha allah dinañ ci ànd ak yow moment bii ñu nekk nag benn soxla lañ am ñun ñëpp mooy président Macky Sall olof yi dañuy wax ñu ne soxla du doon ñaar benn soxla lañu am tey mooy président Macky Sall wax nga léegi sa discours di président Macky Sall def ci biir département de Kaolack ma ne yoruñ candidat boo xam ne dañoo am problème pour wane ko.

ci yaa ngi wax di jotale message yi nga xam ne moo war a dem ci population bi yëpp yaa ngi ci ci dafa mel ni baat bi dafa commencé loof waaye maa ngi lay sant bu baax di sant mboolem jigéen ñi nga ànd ak yëpp di wax na seen taxawaay rafet na sa adjoint yi itam allah nga xam ne bu nekk ñi ngi ci terrain bi guddi ak bëccëg fii ci biir sa biir commune mais ba ca commune de Kaolack seen loxo ko fa ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam boo xam ne kenn du ko mën a miim te ñu fexé tobi bi tobi nekatuñu ci problème gagné inshallah liñ bëgg moy su fekkoon jooni moy woté fi nañ fexé ñaari jooni woté parce que liñ bëgg moy su ëllëgee dëkk bu ci lay lay département Kaolack ñëw ca loolu ku mëna def moy nekatuñ ci problème ndax Diène Faye day gagné commune bi wala déet loolu wess nañ ko liñ bëgg ngeen japp ci moy ñu fexe ba bu fekkee junni moo daan woote nañ fexe ñaari junni woote lépp lu mu laaj pour loolu réussir incha allah daañ taxaw pour loolu mun a nekk